sëriñ Bassirou Mbacke moom sëriñ Abdou Khadre mi nga xam ne moo yor kàddu yoonu murit amal na ngan gu mag goo xam ni mi ngi ko amal ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Lambaye nekkee ci région de Diourbel mu amaloon ko ci aljuma ji dëpp woon ak le 15 juillet 2022 Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdoul Khadre mi ngi bàyyeekoo fii ci Touba ci këram gi diggante 11h jàppumi midi ci la fi délégation bi bàyyeekoo mu délégation bu takk boo xam ne ràññee nañ ci ñu bëri ci njabootuk waa kër Serigne Touba gi taalibe yi soppe yi ak wëllëre yi ñoom ñëpp ñu ñëw ànd ak Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdoul Khadre fas yéene dem ca Lambaay ci ngan gu mag yi nga xam ne moom la fa fas yéene amal muy ngan goo xam ne nag Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdoul Khadre day gën a yeesalaat ngan yoo xam ne ay kilifaam ay waajuram daan nañ ko fa amal ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Lambaye خدعتا فالجود والكرم

mboolem taalibe yi nga xam ne ñoo nekkee ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Lambaye waajal nañ gan gi bu baax a baax ci waajin wu kawe waaye teertu gan ñi nga xam ne ñoo fas ne ñëw ci njiital Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdoul Khadr ñu ñëw teertu si leen ci dëkk bi nga xam ne moomoo di Nangalma arjo ndax convoi bi bi ñu agsee ba ci ndàngal ma fekk nañ fa ay taalibe yu takk lool ñu ñëwoon doon teertu si délégation bi nga xam ne ñoo bàyyeekoo ci dëkk bu sell bii di Touba. noonee lañ àndandoo jubali dëkk bi nga xam ne moom moo di Lambaye mu nekk convoi bu bëri woon ay oto lool. waaye taalibe yi ku ne di fësal seen mbégte ci ngan gi nga xam ne moom la fi ba Bassirou Mbacke moom Serigne Abdou Khader di amal. man gamo agsee ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Lambaye tombeek aljuma dem nañ ci jumaa ji nga xam ne moo nekk ci dëkk ba ñu amal fa jullik jumaa gi الجزمان والقلم لا يبيخ عن نراتب من ذات ارتفاع وولي ولام وهو الكتاب الذي من كان ginnaaw bi ñu bi nga xam ne ñoom la àndaloon ñu ngi leen dalal ci kër Serigne Touba gi nga xam ne nekkee ci dëkk bii di Lambaye mbooleem taalibe yi nag ñëwoon doon ko ziyaara waaye ñu amal fa waxtaan wu am solo. Serigne baa ngi teew ci sa kanam di teewee ak taalibe ga woon di yëkkati kàddu ak dellawaat la boppam joxaat la boppam ak mbooleem ñi mu àndal ak mbooleem ñi mu bokkal Cheikh Aliou Diouf Lambaye dina ñaan nga gudd fan lool te tedd yi ji mi jox nga nungul ko ko te ñaan ko saa boo dajee teeg moom mu mën a jëf-jëf juy gàcce lii mu jëf ren li mu waxan ci télé yi ñëpp teg ko bët dama ne leen jiw jiw wi ngeen denc dana leen jiw wi ngeen denc puudar ko kenn ku ci nekk kenn ku nekk sam xel nekk ci yàlla si taw ba nga ji ko ba nga ji ko am na ceeba moo ñëw am na ceeba moo xam ne mi ngi ñëw moo gën moomee ngeen bëgg a ji gerte googale am na ñoo xam ne ñu ngi ji gerte fii ñu ne te bala ñoo déqi bay jaay nu delloo leen ci biir suuf mbaa ñu dem tëdd hôpital te luñ fi bàyyi loolee dañ koy jaxase rek kenn ku ne jël wàllam waaye ceewam Serigne Touba mi taw si fii mu Cheikh Mouhamadul Basir mi na ci ñëpp ji seenu jiw buñ ko jiyee dana sax dana ñor te dana jariñoo loolee ñu jiyen te mu sax te ñor sëñ bi Mbàkke wax ji man naa bañ a bari. yow daal bi nga dikkee fii. yow daal bi nga dikkee fii ci Lambaay. lañ xam ne xam ne ñun waa Lambaay gépp ñoom ñii di suñu yaakaar teeg ëllëg li ñu deseen ci ak bëgg. loolee sans borom motti li na leen ko mboolem ko yaakaar Lambaay. boo gisee ñu jaarale la ci yoon wii ak ni mu mel noonu. nga muy secousé dañ laa woon ne fii jàmbaar yi fi dajale nit ñi jàmbaar yi fi dajale nit ñi muy sëñ Mbaye Thiergane sëriñ Aliou Diouf sëriñ Mor Mané sëriñ Moxtaan Mbaye Kéré seen tànk yi fii leen teeg jóge woon dem fekk sëñ mag bi gànnaar génn dex jéggi dex gi yor ay susal di ko siim ba mu àggee dégg nga la mu wax. ba mu àggee dégg nga la mu wax. inna la si na ila sar sara xat xasadu. siyaarati hmm. faaraqu daarin awlaa ñooñee demoon la ko wax. ñooñee demoon fekk ko la wax inna la si na ila sar sara xat xasadu ñooñee ko fekkeen sar sara la ko wax. ba tey nag jógu fi. nee na loolee sëñ mag bi waxoon ba kon daal ñoom liñ bëgg. Uh, yoon wii. Cheikh Abdoul nee na yoon wii. fii lañ laxa seen dem. fii lañ laxa fii lañ laxa seen dem fekk sëñ mag gànnaar. bañ leen gërëmit réew mi nu yaakaar nag. yaakaar nag. ñi fi nekk ñëpp. ñi fi nekk ñëpp. kenn ku ne. kenn ku ci ne. dañuy yaakaar ne da nga ko mën a defar. dañuy yaakaar ne mën nga koo defar rek. xëj na defaru gi gàtt yàlla la. waaye suñu defaru. waaye ñoom seen ak defaru. àdduna gii nag àlaxira gën jëm. ci sa jëmm ji lañ koy aj. te kat. sëñ Baara Cheikh Mouhamadou Lamine Baara. Samak Samak. waxoon na ne waxoon na ne. daa leen jàppal bis ñëw. daa leen jàppal bis ñëw ci lambay gii ñu doon joxe sëñ Touba seen i bakkan. ban jàpp loola ban jàpp loola. man mii dem naa ci Sidi Moukhtar. loolee demee ci Cheikh Sidi Moukhtar. ak Cheikh Thioro. ak sëñ Cheikh Thioro. ko waxoon ko loola. bañ rafet loolee dinañ séntu noonu. ndeke seen fomm gépp. ndeke ñoom seen ngàtt yëpp. yow la ko sëñ Touba samp kon nag sëñ Mbaye Fary Samb kon gantu ñoon ñoom dañ doon xaar dogal bi yàlla kam ko dogal ci moom teew mi la ko dogal yoon wi na ñëw rek na ñëw rek loolu daal bokk na ci ak bëggam ak nga ñaan ci sa darajaay maam ñaan gi yomb na lool bul jàng Fatiha bul jàng wenn saar tàllal sa loxo rek ne a Cheikh Ahmadul Khadim ne ko lambaay gii ma dikk nag ma dimbali defal leen nawet ba barkeel luñ ji na sax te nañ ko jariñoo ak réew mépp loolu Mbàkke loolu la sëñ bi jaaree ci lam ñu loxo yàlla bi ne bi mu jaaree ci lam ñu Cheikh Abdoulaye Diouf moom seex ceer la yàlla def loolee ba noppi alhamdulilah Mbacke ciy dolli dafa am lu woy juróom waxoon sëñ Fallou nee na ba mu koy gasal ca carrière sëñ Thierno nee na dafa ñëw ne sëñ Fallou su ma fi fekkoon say noon Mbacke dina dinaa leen rey bañ jeex Mbacke waaye bu ginnaaw fekk nu fi say noon it lépp loo so luñ la so loo yónni. dinañ ko song ba daane ko nee na sëñ Fallou ne ko xam naa loolu yi nee na sëñ Fallou ne ko xam naa loolu yi waaye yow li ma la ciy faye mooy làmb naa la làmbaay loolee nag lay yeesalaat moom mi nee na jëwriñ nga ci tool bi mu am kër ñu mu mu jiite waaye fa mag ña tegoon seen tànk moom mi fa la teg tànkam mbàkke jotaayam benn murit bëgg ko wuute sëñ tubaala lay waxtaane sëñ sony bu nee na ma diw nee na ma di la indil loo xam ne di nga ci mën a sukkandiku kon ñaanal nu ko mu yàgg fi na fi yàgg te am ngërëmu sëñ Tuubaa Mbàkke njabootuk sëñ Aliou Diouf ak njabootuk sëñ Aliou Diouf njabootuk sëñ Babacar Ndiaye Cergan ak njabootuk sëñ Babacar Ndiaye Cergan ak sëñ Mor Mané ak sëñ Mor Mané ak sëñ Maxtaar Mbay Kayre nga xam ne li ma ci ma ci ak sëñ Mor Awa Ndiaye li ma ci li ma ci yéenee wax sëñ bi ne li mu ci yéenee wax day bàyyi ba ñu tàggoo sax ci jotaay bi. ca jotaay ba. ci laa ko door nee na fa la ko bëgg a waxee. waaye eh, sant sëñ Abdoulaye bu baax. nee mi ngi sant sëñ Abdoulaye Diouf mii bu baax. ak mboolem rakkam yëpp. ak mboolem rakkam yëpp. ak doomam yëpp. ak doomam yëpp. ci pasteefam. ci pasteefam. ak taxawaayam. ak taxawaayam. li ma ko waxoon daaw jéeg ci kanamu sëñ Jiili mii. nee li mu waxoon daaw jéeg ci kanamu sëñ Jiili mbakke mi ca koor ga ca koor ga. dama ko fu ma la ngay ñëw rek. da ko ne fu ma la séenee ngay ñëw rek. ab yëg-yëg am. ab yëg-yëg laay am. loolu yàllaa ko def. loolu yàllaa ko def. yëg-yëg bi la ci jiitu. nee yëg-yëg bi la ci jiitu. ku la seen xam ne murid saadix nee ku la seen xam ne murid saadix la. est-ce que doo ko nattable. nee doo ko nattable. loolu tawféex la. nee loolu tawféex la. xëy na kilifa yi liggéeyal. ne xëy na kilifa yi nga liggéeyal. ak sa waajur wi nga liggéeyal. ak sa waajur wi nga liggéeyal. moo ko def ci yow. moo ko def ci yow. li ma la wax léegi it. li mu wax léegi it. la bu jaaree ci saw làmmiñ. nee la bu jaaree ci saw làmmiñ. waxewu ma ko bakkan. waxewu ko bakkan moom. yaakaar xam nga li mu wax la te nee na yow xam nga li tax mu wax la ko. waaye liggéeyal Sëriñ Tuubaa ba mu gërëm la. ne waaye liggéey Sëriñ Tuubaa ba mu gërëm la. moom laa gën a wóolu ci sama ñaan. ne moom la gën a wóolu ci ñaanam moom. ba nga ju jugee ba nëgëni. ne te ba nga euh, tàmbalee ba nëgëni. wàcce goo. wàcce goo. ci pëstéef. ci pasteef ak taxawaay ak taxawaay joxe sa bopp joxe sa bopp joxe sa jëmm joxe sa jëmm joxe sa alal joxe sa alal ba fii nga toll ba fii nga toll nga xam ne bu ma lay séen sax dama lay ñëwante nga xam bu la séenee sax da lay ñëwantu moom daa bëggoon a bàyyi ba sëlmal takkusaan ñëw fa daa bëggoon a bàyyi moom ba sëlmal saa ñëw siyaar si la far nga yàlla nga agsi ci diggante bi waaye cant gi daal sëñ bi nee cant gi daal làmmiñ yu lott ci wax ko nee làmmiñ yu lott na ci wax ko ci la ci jëf yi weesu yëpp nag. ne ci jëf yi weesu yëpp nag. ba ci sama tool yi ma doon gor. ba ci tool yi mu doon gorlu moom sëñ bi. woon nga ñëw. ne bëggul woon sax nga ñëw yow. damaa bëggoon say say say say say njaboot rek ñëw. ne daa bëggoon njaboot gi rek ñëw. donte yëglewuñ ko. donte yëglewuñ ko. waaye ñëw ga sax dafa diis ci yërëm la ca. waaye ñëw ga sax daa diis ci moom ndax dala caa yërëm. waaye Pastef bañ ci àndal. waaye Pastef ga nga ci àndal. loolu attanuñ ko. ne loolu attanu ko. attanuñ ko moom. nee na attanu ko moom. Sëñ Tuubaa rek a tax. ne Sëñ Tuubaa rek a tax. waaye moom ma tax nag. waaye ne moom ma tax nag. am nag pay. am nag pay. te lu ko nit jëfal. te ko nit jëfal lu ko nit jëfal. ndax joxe alal kat. ndax joxe alal baax na lool. baax na lool. waaye joxe sa jëm moo ko waaye joxe sa ruu moo ko gën. joxe sa jëmm. joxe sa jëmm ko gën. ak sa doole. ak sa doole. moo ëpp doole joxe sa alal. kon nag ku boole yëpp. kon ku boole yëpp nag. sak pay yàlla ko xam. sak pay yàlla ko xam. kon nag day ñaan ci baa ngi ñaan nee ci barke Sëñ Tuubaa. yàlla nga yàgg gunge njaboot gi. yàlla nga yàgg gunge njaboot gi. ndax njiit nga loo xam ne kat. ndax njiit nga loo xam ne kat. koo ne ci kanamam. koo ne ci kanamam. xelam dal xelam dal. ndax ñi nga bokkal kër gi. ndax ñi nga bokkal kër gi. ñëpp la ko yéene. ku la ciy ku la ciy ñaanlul da ngay xam ne ci xolam lay tibbee ngay xam ne ci xolam la koy tibbee kon yàlla na Sëriñ Tuubaa dimbali kon yàlla na Sëriñ la ba sa waajur nga sut ko fan ba sa waajur nga sut ko fan te li nga bëgg a liggéeyal Sëriñ Tuubaa itam te li nga bëgg a liggéeyal Sëriñ Tuubaa itam nga am kattan nga am kattan ak wér goo ko mën a liggéey cant gi daal moom sëñ bi ne cant gi daal moom lottu na ci lottu na ci lii ngeen wax ci yoon wi itam ne lii ñu wax ci yoon wi tam fii yoon wi la ëpp fii yayoo na lu ëpp loolu. nii fii la fii yayoo na lu ëpp loolu. fi ñu koy def fépp. ne fi ñu koy def fépp. fii ko gën a yeyoo fii ko gën a yeyoo. man sama jëm bopp nag. ne moom jëmmi boppam nag. kon li may jiital mooy ñaan ci Serigne Touba. kon li muy jiital ñaan ci Serigne mooy mu daal di sotti. ne yoon wi daal di sotti. li ma ci war a def it. lim ci war a def it. ci wax ko ña ko war a def. ci wax ko ña ko war a def. nu mu gën a gaawee nu mu gën a gaawee fii ak altine dana ci joxi jéego ne loolu yittey boppam la ndax ba ma fi jaaree laata ngeen ma koy wax nee na bi mu fi jaaree laataa ñu koy wax rek laa am moom la am yëg-yëgub xam ne lii lu war a am xam ni loolu lu war a am la te buñ ko ko waxutoon itam fekk na mu ne ci xelam dafa jaadu moo nee dafa jaadu moo tax nee na jaa jaadu moo tax Mbàkke jërëjëf tàllal leen kon made kawnina wa gadan inna al muqaddami la sabi man gawrum sallallahu amal nañ cérémonie bu mag boo xam ne ñu ko amalee ci tente bi nga xam ne moom la ñu waajaloon mu jotaay bu yaato yaatu boo xam ne am na kàddu yu bëree bëri yoo xam ne jib na fa ñu ànd di leen ko rajim bisimilahi rahmaani rahim yéen mbokki làmbaay ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar ñu ngi nuyu sëriñ bi suñu sang sëñ Bass Abdou Khadre di jël nuyoo bi mu tegaluñu ko ci loxo ku tedd ki sëñ Mountakha Bachir ñu ngi nuyu ñëpp sëñ bi ñu ngi lay nuyu di nuyu délégation bi nga àndal yépp di nuyu ñi fi teew ñépp góor ak jigéen mag ak ndaw di wax ne tey jii de ñun kontaan nañu làmbaay kontaan na parce que sëñ Touba ñëwati na làmbaay parce que ñi ma jiitu wax nañ ko sëñ Fallou ñëw na fi sëñ Abdoulahat ñëw na fi tey sëñ euh, bas Abdou Khadre nga xam ne moo sës rëkk xalif général des Mourides di loxo ndejooram moo ñëw seet si waa làmbaay sëñ bi ñu la ciy sant Mbàkke di la gërëm di gërëm waa Lambaay di gërëm nag suñu sang bi ak ay waajuram ak ay magam muy sëñ sëñ Xaadim Diouf sëñ bi jërëjëf parce que gis lu baax def ko duñ mën lu dul sant ñun daal taaliba lañu doon te taaliba la ñuy masa doon may sën bi rek di yóbbante ci ku tedd ki na ko làmbaay de vraiment ah am na loo xam ne dëgg la wax naa kook yow léegi ci suuf muy suñu yoon wii parce que président Senghor jaar na fi ñu diis ko ko munu ko euh, antuwul président Abdou Diouf jaar fi antuwul président Abdoulaye Wade jaar fi antuwul yaakaar nañ ko ci président Macky Sall nag parce que nag euh, euh, vraiment Lambaye mérité na am yoon woo xam ne nit ñi taalibe yi mën nañ cee jaar di dox seen yitte bu boobu passé sëñ bi ñu ngi wax ne dañu am fële xam naa war ngeen ko yëg sax suñu ay mbokk yoo xam ne nekkoon fële ci salle fi ñuy wax salle de vente ah vraiment di ay jàmbaar di liggéey di indi seen euh, seeni kër te boobu ba léegi ba fa lakk boobu amee ba léegi dañuy xëy suba ngoon di yendu bu xëyee yendu paas ñëw toog ba ngoon ñu dellu loolu metti na sëñ bi ñu la koy diis di ko diis kilifa gi pour que mu jàpp ñu ci ah ñaanal ñu kilifa réew mi pour que ñu dellu foofu ñu doon liggéey ah mën a yor seen njaboot mën a yor gox bi maa ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp sëñ bi di wax ne Mbàkke sant nañu bu baax bis bii tax sëriñ Xaadim woote ko ànd ko ay bokkam ak ay dëkkam ba tax nga teew fi ak say bokk ak say wëlër ak say taalibe njaboot gépp ngi ci am mbég waaye di la xamal nag dafa mel ni wat ca watit la rek waaye bu loolu loolu lépp jàllee ñu ngi lay xamal ne la dëkk bii nga dikk muy lam dëkk bii nga dikk muy làmbaay pay baa nga nee mhm. foofee 1894 Yaasin Joor Gala Gànn moom la fa teñtanoor wuutu ci dat boobu bi ko teñtanoor wuutu ci dat boobu le premier septembre 1891 ca la teñtanoor signé benn traité ci gouverneur Sénégal lebo email Clément Thomas boobu moo nekk ndara ngir booba te bi ci at dat boobu ci lañ jàpp magi sëriñ Touba yi nekkoon fii muy bis boo xam ne bis bu metti la bis bu réy la te bis la boo xam ne moo jiitu ci yoonu murid wépp ndax tey jàpp na leen le 1er septembre 1894 nekk fi ba le 3 juillet 1894 mu génn àddina te da ngay xam ne Serigne Touba le 10 la jóge jeewal dem Kokki dem Louga dem Ndar le 5 septembre 1895 ci dem ci géej gi. booy xool date bi ñu jàppoon ñii ak bi ñu jàpp Serigne Touba am na différence ñeenti at ak ñeenti fan bi ñu jàppee taalibe Serigne Touba yi fii ak ba ñu jàppee Serigne Touba di ko yóbbu ndar di ko yóbbu ci géej gi am na ñeenti at ak ñeenti bis kon dama ne bis bii bopp làmbaay bii moo jiitu ci bisu yoonu murit yépp ndax moo jiitu bisub Serigne Touba boobu bii jàppeel ga nag du dara. la dalan sëriñ tubaa moo dal ay taalibeem rek sëriñ tubaa daa bëggan yàlla ak yonente bi te boolewu koog dara ñii bëgg yàlla ak sëriñ tubaa te boolewuñ ak dara te booba it ñu am aw fit am ak njàmbar bokkoon ca nguur ga ne dañuy dem ci sëriñ tubaa keroog bi leen teen tanoor wooyee ci pays bee fee nga xam ne mi ngi tàmbalee buntu kër Aliou Fall ba penc mbajaan sàmba aw lépp ci penc mi la woon guñ ndënga fi la nekkoon supp ngàññi ci la nekkoon yu baree bari foofa la nekkoon kere bi mu leen jàppee foofu gëm guñ gëman sëriñ Touba ak bëgg ko ak seen pas-pas ak wóolu ko ak bañ ko yemale dara leen jàpp wàndu leneen kere bi leen teen jàppee bay bayaar Mamour Dior Kumba Jaariñ Fall moo jiite woon soldaari teeñ téeméeri fetal la teeñ garan muy sàqum fetal yooyee day gudd duñ ko jar waaye lu bari xew na ci muy limite lool waaye la ma waxoon ne sëñ Moussa daa wax ne mbërëm sëñ Touba kenn mënu koo daan ñoom booba mandi nañ ci sëñ Touba te àgguguñ ci sëñ Touba sëñ leen lépp ñu ak gëm ak am sob am pas-pas si maanaam tay la seeni bakkan ñàkk ko moo leen gën leen bañ a sëñ Touba sëñ Touba nag def na la ko soob dem nañ ci sëñ Touba te ñàkkuñu seeni bakkan ñooñee nag Mbàkke ñoo meññ ñii xëy na loola nekkatu fa waaye lii fi nekk day ay taalibe lañ bu ñu leen bu leen sëriñ Tuubaa wooyu ñu bu leen liggéey loo ñu liggéey bu leen laajee ñu jox leen ñoom la góor ñi dund jigéen ñi di ko dund bis boobu mën nañ ci fanaan di wax ba suba waaye du ko jar li ci am solo mooy lool loolu rek la ca ko sëriñ Xaadim dafa wax ne ngan gi maam Ceerno Ibra Faati gane si woon sëriñ Aliou Diouf Lambaye te ba ba mu koy gane si dafa ànd ak sëñ sàmba Mbacke ak sëñ Mouhamadul Moustapha Mbacke ak Cheikh sëñ Thierno ay ab Samba ay Sambak ak Cheikh ab Sambak ak sëñ Matar ma Samba ak sëñ Mbay Penda ak leneen kon dafa mel ni boobu yoonu murit wëpp an nañoo ak maam Thierno gane sëñ Aliou Diouf Lambaye kon moo tax ma ne wat ca watit loolee boo déggee sëñ Moussa naa keroog gën këram ya rënd ak rendi la ñuy liggéeyee gan ñi toox ba mandi ngan gu neex a ko war na kon sëriñ Xaadim daa wax ni ngan gii nga ko gane si xàmmewu ko ngan googa ko maam Thierno gane si woon sëñ te kat ñiy wax dañuy wax ne ngan googa képp la maam Thierno mas a gane mos sa gane geneen ngan kon bu loolu amee mu jóge fi mu Amadou sëñ Abdoul Fadil ñëw fi Cheikh Mouhamadul Basir ñëw fi sëriñ Abdoulaye ñëw fi sëriñ Mouhamadul Mourtala ñëw fi sëñ Sidi Mbacke ñëw fi maam Thierno mbakki ñëw fi ñu baax ñëpp ñu fi nga wàññi ko tey yor baatu yoonu murid ñëw fi dafa mel ni murid yëpp nga fi ñëwal waaye Mbacke nun murid yëpp ci baat bi ñu la jox bi la sëriñ bi jox am na num xel am na nu nopp noo ngi diglu waaye am nga ndimbalu yàlla yàlla na jëm kanam ndax kere bañ la ko joxee ba tey lépp loo wax nit mën na cee jariñ bu tontu jotee it boo tontoo kenn ku ne na la ma bëgg na wax moom la ma waxal kon loolu ndimbalul suñu borom la yàlla suñu borom def nga àgg te bañ a am men ndog sëriñ Xaadim nag nee na yaag ñi nga àndal ak ñii teew lebal ngeen ko loo xam ne mënu fay ak i bokkam ndax kat am na loolu boo ko mënee da ko ànd ki bokkam ndax xaadim Diouf mii kat sëñ Mamadou Fatou Diouf mooy waajuram sëñ Aliou Diouf Lambaye jur ko soxna Maguette Fall mooy waajuram Serif Assane jur ko Cheikh Ibrahima Fall jur kon nu mel ci baax doyut déggal na ay magam déggal na ay waajuram nungu na luñ digle mu nekk loola moo ko may lii. damay faral di wax ne nit ñi léegi léegi ñu àtt nit te duñ ko xam ndax nit ñett rek la am na ci ñoo xam ne. da ngay dégg nit bëgg ko kooku bayre da koy def am na ci ñoo xam ne dangay gis nit bëgg ko loolu it taar da koy def waaye nag jaxasoog nit bëgg ko loolu jikkoo koy def nit it mën nga koy dégg ba bëgg ko boo jaxasoog moom xet kon sëriñ bi li tax ku jaxasook moom di ko gën a bëgg loolu ay jikko la ci jikko yooyu gënuma koo xam ñi taxaw ndax ku nekk xam ne ne yoonu murit wii kin ëpp ki ni attaqué ci yoonu murit di jël ay kàddu di ko jëme ci moom ca du tontu moom képp na kenn du su ko dégg mu tontu saa yu waxee rek Sëriñ Muntaxa mooy wax bu tegee na ko ba pare nag waxi boppam bëggul ku koy wax Sëriñ Bachir moom Sëriñ Abdul Xaadir ba mu dalee bay di liggéey ci yoonu murit kenn xamul kañ la fan yii la ko nit ñi door a xam mooy bi mu sancee toolam yële di xislu la ndax da ci bari ñoo xam ne barkeb Sëriñ Tuubaa bi dañ koo xeeb ba jàpp ne njabootu Sëriñ Tuubaa gi état leen di dundal looloo waral ñu bëgg leen a jàppalise ak population bi ak seen i taalibe loo wax ñu ne taalibe yi sëriñ si dañu exploité taalibe yi loolu njuumte la boo demee xisnul labraar wala nga dem puut wala nga dem ci daaram giri móor yi da nga xam ne sëriñ bi ba muy am teraanga booba xamagut lan mooy ndombal tànk ca it képp kuy wax boo sañoon sëriñ Basiirum sëñ Abdul Xaadir woo la yónni la la tax ngay wax da ngaa jotiwut ci moom rek waaye boo jotee ci moom duutoo jëlati kàddu gu ñaaw di ko jëme ci moom kon sëriñ bi ñun murid yi nañ takkaat suñ ndigg jàmpal seef ci am pas-pas Cheikh Mamadou Mountakha lu mu wax suñ tubaab ko wax loo te damaa gis fan yii ay nit nekk ci réew mi war a def seen liggéey ñëw ci moom tàggu ko ngir def ko kilifa mu ñaaneel leen ñu dem nga gis ay gone yu ndaw taxaw ci tele yi wala réseaux sociaux yi di wax bay wax ne xalifa yëpp dañ leen war a too woo teg leen ci pénc taal leen loolu ñëpp dégg nañ ko muy vidéo boo xam ne tasaaroo na waaye ci suba bi ma koy xoolaat fekk naa ñu supprimer ko ci mboolem réseaux sociaux yi loolu ca ki ko doon wax dane am na fanweeri at génn Touba soxnaam Touba la nekk ndeyam Touba la nekk baayam Touba la nekk Touba la jànge ba ma pare mën a yëkkati kàddu yi jëme ko ci Cheikh Mamadou Mountakha ñu koy seetaan ca xam ngeen ne politiciens yii jëriñu jëndee pas-pas jaruñu ko de suñ digganteeg suñ tubaa li suñ tubaa man ci ñun benn politicien mënuñ ko ci ñun kon suñu pas-pasu yoonu murit nañ ko téye te mooy tundiku Cheikh Mamadou Mountakha di wax ñuy am di wuuteeg moom ay xalaat wala ñuy xalaat xalaat yoo xam ne bokkut ak la muy xalaat nañ ko moytu Cheikh Mamadou Mountakha féetewut ak kenn ku du suñ tubaa Cheikh Mamadou Mountakha àndut ak état àndut ak opposition képp koo xam ne nangu nga suñ tubaa di sa kilifa mooy sa kilifa ku ñëw sukk ci moom nag da nga jàpp ne yow la àndal ndax loolu mooy jikkoy sang waaye bu ko kenn féetale fenn ku ko nangu nag mu doon sa kilifa mu digal la tere la ku nangul mu doon sa kilifa nag mu màndu ci yow li képp la kon nag nañ téye suñu pas sa moytu wax ju sew ji ca njabootu suñ tubaa gi ñu war maa leen ca jox leenu jër dama ne lam xar lekk bay ba bajantu aw nag lekk na ko ne nemm taxaw làmbaay jii ku fi taxaw xam ne kenn du fi fooyee pas ñi koy fooyee ñëpp boo leen xoolee seen jenn maam ju àndoon ak suñ tubaa amul wala bu fekkee am na rek génn na waaskanam wala mu ñàkk kilifa waaye képp koo xam ne suñ tubaa sa maam liggéeyal na ko lu toll na tarfatoon ay ni da nga fonk njabootu suñ tubaa gi bi ñu dugg dëkk bi sama yaram dafa daw ndax damaa gis saay saay si ni ñuy jàppale seen yoonu murit niñ leen di jaxaseeg njabootu suñ tubaa gi bi ñu dugg làmbaay ñu gis mbooloo mi niñ génnee di rëg-rëg ngir sëñ Basiru moom sëñ Abdul Xaadir nga xam ne sëñ Tuubaa lañu ñuy yàqal waaye sët bi ñëw rek dëkk bi mel na luy toj mu mel na dañuy xëy di yàq fukki di yàq junni di xëy di jéblu kon nañ lu ci mbirum sëñ tubaa ca xam ne mbirum sëriñ tubaa kenn mënu ci dara ñu jégalu kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu su ñëwee tey ci bàyyi yitteem yëpp ñëw ci tund wii làmbaay dañ xam ne waa làmbaay kat daanañu am ndam waaye amati nañu ndam tey ci gan gi fi ñëw tey jii ndax jëmm la joo xam ne bii day man sama bopp jàpp naa ne ci yoonu morit amut ku ci ëpp njariñ kon nag ku mel noonu fu mu jógee jëm fa ñamuy fekk si war nañoo sant yàlla bu baax ndax bari na fuñ ko soxlaa te duñ ko fa gis bari ñu koy koy wongan waxtu nekk te du leen wuy du ak ñàkk yi téem de waaye xat-xat yi masuuliya bi nga xamante ni bi moo nekk ci moom moo waral loolu kon nag bu bàyyi yitteem yépp ànd ak mbokki mbokkam yu baax yi muy rakkam yii ànd ak mbokki taalibeem yii fekk si leen fii kon nag na ngeen xam ne waa làmbaay de amati ngeen dam waaye amati ngeen ab sag bu rëy rëy rëy ndax Cheikh Mahamadul Basir mii lii nga xamante ni bii tey cër bi nga xam ne moom la am dafay cër boo xam ne daf ko war a am damay wax ne maam Thierno Ibrahima Faati bi ko sëriñ Touba di dénk yoon yi booba fanweeri at rek la am bi sëriñ bi di dem ci géej gi di ko bàyyee yoon yi di ko dénk booba fanweeri at la taxawaay boobu mu ci taxawoon ba sëriñ bi ñëw fekk si fekk si ko nam ko dénk woon mu yokk ko Cheikh Mamadou Basir man ci taxawaay boobu rek laa koy xool ndax bi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Amin jox na ko kàddu yoon wi ni mu ciy taxawee ak ni ñu ciy doxee ni ko sëriñ Daam Juuf waxee léegi. di ci doxe doxin wu rafet di ci taxaw taxawaay bu rafet di di sagal yoon wi ci fan yëpp kon jëmu jooju fu mu jóg ne dafiy ñëw ñamuy seet si war nañoo sant yàlla bu baax te xam ne bare nañu ko bëgg te mënuñu ko am kon nag Mbacké Balla ñu ngi lay sant di lay ñaanal bu baax di feddali sunu taalibe ci yow di feddali sunu sunu kóllëre ci yow di sant bu baax di sant di santaale nag waa Lambaay yëpp ni ko sëñ daam waxee ndax sañ naa leen sant la sant la la sa jëm ji kon nag ñu ngi sant nag mbokki taalibe yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu waa ëttu Lambaay yëpp di leen sant di leen gërëm ci yitte ak taxawaay bu rafet bii nga xam ne def nañ ko di teg nuyoo bi nag ci loxol ki nga xam ne mooy seen kilifa di sëriñ Thierno mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Aliou juuf tey ak mboolem doomam yi ak mboolem ay rakkam ak i sëtam bayum kenn ndax fii ku tudd làmbaay sa xel dem ci sëriñ Babacar Ndiaye Thiergane taxawaayam ak posté fam ak yitteem danaa ci dellusiwaat sa xel dem ci sëriñ Aliou Diouf sa xel dem ci sëriñ Mor Mané waaye sa xel dem ci sëñ Matar mbay ak sëñ Omar Ndiaye ak ñi ñu ko seqaloo ñëpp mbooloo lañ ñuy ay jàmbaar waaye ñi ñii ñu fi bàyyi meññi leen de fañ tëdd seen xol sedd la ci ñoom ndax ay jàmbaar dëgg lañ kon ñi ngi nuyu bu baax di sant di gërëm sëriñ Abdoulaye Diouf xalifa sëriñ Thierno Diouf Lambaye ni ma ko ko waxee ci biir rek fu ma ko séeni rek ab yëg-yëg laay am ci moom ndax ku ko séen doon nattal ne taalibu Sëriñ Tuubaa yàllaa ko ko defal te siimaahum fi wujuuhihim ku ko séen da xam ne murid saadiq nga di di ko sant ndax fi mu toll ci at lii muy def weesu na ko sama tool yee ba ma koy gor ñetti fan la ko yëg yónnee sa xëju fa waaye mu ñëwal boppam ne ci biir tànt yi ci biir tàngoor wi man sax sama yaram dafa daw xam ne loolu attanu ma ko waaye nag Sëñ tubaab mi tax muy def gis na ko yàlla na ko fayal boppam kon ñu ngi koy santaat bu baax di ko gërëm keroog bi moo ko jotee téléphone ci bañ dee ginnaaw suba la tabaski la ne ma Sëñ Xaadim Juuf de maa ngi koy sant ndax lu baax kat ku ko yëkkati kuy sant cant ga ci yow la ko war a tàmbalee wax kàddu yu rafet di nuyu sëriñ Ahmadou Diouf mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Mat Diouf Làmbaay moom itam benn taxawaay bi rek la ndax mooy kilifa ak sëñ Xaadim te taxawe na ci nam ci war a taxawe te bu tax bu ko ko yombalu toon lu mu ko bëgg-bëgg du ko sañ a def ndax yoon wi yoonu kilifteef kon moom itam ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaaral mu yàgg jiite njaboot bi yàgg rakkam yi topp ci ginnaaw yàgg ànd moom di liggéey Sëñ Tuubaa ndax seen waajur Sëñ Mat Juuf am na ko ko leeral léegi diggam ak njabootu ko Sëñ Tuubaa dafa ràññ ko woon ndax néeg Sëñ Mat Juuf ba kat ku ne dégg na ko fu bari ci kër Sëñ Tuubaa loolu pëstee fa ko ko may ku jaxasoo nag njabootu Serigne yi gi la kër Cheikh Bukhari ñëpp ko doo xam Cheikh Modou Fall kii wax na ko nee moo ko borom Cheikh Abdou Khadir digg ma Cheikh Abdou Lahad lu ñaari jëm Cheikh Abdou Khadir ak njabootam foofu ku jaxasoo woon ak moom la daanaka benn lañu woon la demee ak Serigne Saliou noonu la demee ak njabootu Serigne Touba kon képp ku bokk ci moom rek taxawaay boobu nga war a mel kon loolu du kiimaan te doy na ko sëkk seen maam sëñ Aliou Diouf sëñ Cheikh Bamba mu Cheikh Abdoul Ahad mi faatu ndëgëni daaw yàlla suñu doom leeram li tax Cheikh Abdoul Ahad boole ko ci biir sëtu sëñ loolu doy na sëkk seere ci pëstéefam diggante sëñ Aliou sëriñ Tuubaa sëriñ jiiram sëñ Abdou Fatah itam doy na sëkk seere sëñ Ceerno ci diggam ak sëñ Tuubaa ak ñeneen ñi ñu ko seqee ñëpp di jabaru sëñ Tuubaa kon li leen booleeg yoon dafa bari suñu xaadim yow itam ñu ngi lay sant bu baax a baax ndax ba sa waajur jël la jébbale Cheikh Abdoul Ahad boobu lu mel nii la séentu woon ci yow ndax Cheikh Abdoul Ahad kat képp kum yar Sëñ tubaar rek la lay wan looloo waral nga mën a doxe nii nga doxe kon ñi la sa bokkee sant rek ñun sant nañ leen cant gu kooku ndax falaw qabla mabkaaha bakaytu shababatan bi shuda shafaytu nafsa qabla tanaddumi walakin bakat qalbi fa hayyija li bukaa bukaaha fa qultu fadlu lil mutaqaddim kon yàlla suñ borom defal la ci loolu nga bokk kook sa bokk yi ko seqal yépp nag ndax xam naa lu ngeen ci def rek sama jëmm taxut ndax bu doon sama jëmm ñoo njëriñ dara waaye nag sëriñ Souhaïbou bu mas naa dégg ca làmmiñam ñam suñ moot ab yi mii la la doon la ko wax ci mbir mu ne ku baax di nee woon na ku teral ku bokk ci man yàlla teral la ba faw daanaka waaye safaan ba it naka noonu kon lu ngeen ñu defee rek jëm suñ Tuubaa tax mënaluñ kenn dara mënuñoo fay kenn dara xamuñ sax li xew ëllëg waaye ki tax ngeen du ko def nag am na ko fay yàlla na fayal ko lii ma def fii itam du kiimaan ñëw gi ma ñëw fii ndax suñu kilifa du suñu sëriñ ñëw nañ fi ba tàyyi kon bu ma fi ñëwee danaa xeeñtu seen i jeexit ak dundal ko waaye ñëw gi doonut ndam doonul lu war a rëy ci yéen ndax ñoo ñoo ma samay kilifa rek fi ñëw fu ay doomu Sëriñ Tuubaa ñëw Cheikh Mamadou Fadil ñëw fi Cheikh du Ahad ñëw am fi ñetti fan wax yëkkate kàddu yëpp leen waxoon te seere samay jumaa ji ndax ba mu dikkee dana leen kër Sëñ Tuubaa de Sëñ Tuubaa fu mu mas a kër balaa rëdd kër jumaa jaa jëkk digal leen ko yaakaar naa sëñ Mat Juuf moo fi newoon kon lam leen digaloon def ngeen ko lii mooy CRC kon fii day barab boo xam ne barabu Pastef la barabu namm Pastef la ndax ba yoonu murid sosoo rek seen kilifa yu baax yi ñoo jóg jaayante laxasaayu jël seeni jëmm ak seen deret ak seen alal jox ko Sëriñ Tuubaa ba yoonu mu di taxawu kon li alquran bi wax ne laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfatxi wa qaatala ulaika a'zamu darajatan min allazina anfaqu min ba'du mooy seen maam yi ba ñu joxe seen bakkan boo xamuguñ fu Sëriñ Tuubaa jëm ba ñu jaay seen bakkan xamuguñ lu leen si nar a fekk ëllëg kon borom basiratu lañu ñu bokk ci juddu bu kawe ñu jaay seen seen seen juddu bépp jënd ko ngërëmu jaay te mooy ngërëmu Sëriñ Tuubaa wa ridwaanu llaahi akbar saalika wal fawzul aziim kon barab bii barabu yee salaat ak laxasaay la barabu yee salaat jaay de suñ digg ak Sëriñ Tuubaa la barab la boo xam ne itam képp ku fi dikk wax ma ko bokk ci moom waaye war ngaa delloo si waat sa digg ak Sëriñ Tuubaa tey xool jëmmi Sëriñ Tuubaa ngir xam ne ñoom de ba ñuy jug jàmmaarloog noonu yàlla yi jàmmaarloog noonu Sëriñ Tuubaa yi te xamuñ ne lu leen si nar a fekk loolu leen si nar a fekk xupp gu ne ñu def leen ko tiital gu ne ñu def leen ko waaye faalewuñ ko nga xam ne dem ci Sëriñ Tuubaa moo leen gënal wala ñu faat seen bakkan kon ñoom misaal la mu ñëpp war a jàng ci ne yàlla suñ borom bu leen nattoo ci loo xam ne xamugoo la cay xew ëllëg foofu lay xame baax sa ngëm wér na wérut maa kaana allaahu li yadara almuminina ala ma antum alayhi xata yamiita alxabisa min altayibi wa maa kaana allaahu li yudiakum ala alxaybi bañ leen di tiitale ko xupp ngir bëgg a faat seen bakkan ngir bëgg ñu bàyyi Sëriñ ba tax ñuy jàmmaarloo ñu xamuñu woon li leen ci nar a fekk ëllëg dañoo dogu jaayante gëm Sëriñ Tuubaa mu jaral leen ko yàlla aar leen ca sàmm leen ca seeni bakkan des fi seeni sët di tedd bu faw te ña leen ko ne tey kenn tuddatu leen ci àdduna kon loolu mooy liggéey Sëriñ Tuubaa kon waxuma yéen ñi ci bokk waaye fii day foo xam ne képp ku yaakaar Sëriñ Tuubaa war ngaa xam lan mooy làmbaay war ngaa xam ña fa dëkk ñoo ñan war ngaa xam liñ doon ci biir yoon wër kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan ci barke Serigne Touba lépp loo xam ne liggéey Serigne Touba dana ko maye yàlla na ko suñ doon defal te defal na leen ko sax ndax Serigne Touba kat la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon Serigne Modou Serigne Bukhari neew na ko liggéey Serigne Touba toppum siti la lu ci waay defe rek ba say sët da leen topp moo tax yéen ñii nga xam ne seen maam yi ñoo gàddaayoon njëkk ànd ak sëñ dama naan lu naqari nit ci yoon murid bàyyi ko ci yéen ndax yéen kat lu adduna dox dox ak lu jamono dox dox ak nu mu mën a tëdd sëñ Tuubaa leen gën a lépp nit ñi rek jamono dafa jaxasoo waaye yéen ñii sëñ képp ne ci yéen lu mu doon rek sëñ Tuubaa ngeen cee xool fu foo gis ñu dem jëm fa rek sëñ fee xool loolu rek mooy da ci am solo kon nañ gën a góor lu baax a baax lii sëñ laay wax ma li ci biir sëñ Abdoulaye mooy yoon wii nee naa ko li may jiital mooy ñaan ci barkeb Sëriñ Tuubaa ndax nit ko lu mu bëgg-bëgg te yàlla dugal ko du sotti la cee sama wàll itam incha allah bu ma jugee fii balaa ma ñett fan dinaa ci doxu jéego te incha allah itam fas naa yéene dina sotti ndax fii ba ma fi jaaree laata ngeen ma koy wax yàlla muy bind xam na ne. sama xel dem na ci ne fii de yitte la joo xam ne dara jiitu ko ci yitte yoon bi ndax fii barabu Sëriñ Tuubaa la waroon naa am tëri bu yàgg fi ñu koy def li ci ëpp fi yëpp gën a farata ndax cosaan bi ak ñi fi dëkk ak ñi fi jëm si ak ñi fi yaakaar kon loolu moom gëm naa ne luy sotti la doon allah duñ ko duñ ko wutaleek lañuy liggéey sëñ Tuubaa ci biir Tuubaa ndax lii ci biir Tuubaa la kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jot lii itam ndigal lu ma sëriñ bi wax yónni woon moo ko ci sëñ Mouhamadou Xabbaan mu Cheikh Moudou Fadel ak sëriñ Amsatou mu sëriñ Chouaïbou ak sëriñ Moussa Diop ba Hizbut Tarqiyyah ak sëñ bàkk yu fay yàlla nag def na nag ngeen am tawfeex yi bi ma ko sëñ bi waxee boobu maa ngi jëm si fii mooy joxe na ndigal ne di tàmbalee dibéer ginnaaw suba ji ba di dibéer ji dellusiwaat képp ku ko mën wala ci daara wala ci biir kër na ñëpp tàmbali di wàcc alxuraan ngir toroxlu sa digg sa borom ñaan suñu borom wàcce ndoxum jàmm te wàcc jàmm ci réew mi képp koo xam ne xas xasida nga mën a jàng itam di tàmbalee ci dibéer ginnaaw suba ji ba mu dellusiwaat ba ci altana ja nee na bu altana ja moom ci boppam mooy defar boppam xarnu bi ñaan ci diggam boromam. suñu borom indi jàmm ndax nee na ñaan gi gat nañ xam ne lu ñu war la waaye bu ñu xasee ñaan nag lépp nañ ko bàyyi ci loxo suñu borom taalibe Sëriñ Tuubaa daa war di sant ndax Sëriñ Tuubaa sant lañuy jàngal waaye jàmbatu yu jàmbat na saxtu bi shukri shikaayatan fala askuluhu durr yi wa durr yi afala Sëriñ Tuubaa fàggul nañu loo xam ne ba addunay tukki képp ku bokkul Sëriñ Tuubaa dañ ci ñeex sëñ Babacar Diar sëñ Babacar Diar Cargaan mii ma doon tudd léegi walla si jaala lakum al arda zalulan famshu fi manaakibiha ba leen ko sëriñ bi wax ñooy gàddaay moo indi tey ñeen dem ba Ndakaar ba bawol bawol yu bari fa moo jur ba taalibe murid dem bitim réew dafa ñëw ci sëriñ Touba soxna jàng si la libaas mooy maami Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ak sëriñ Saliou ak sëriñ Jean bi fekk nawet dafa jot te Serigne Touba dafa bëggoon kuy liggéey bi nawet jotee mu war a dem baa ko Serigne bi téye ko Serigne bi yëkkati dara ne ko boo demee nga dimbali ko ci tool yi boole ko Serigne Babacar Jaay fekk am na ku ko Serigne bi jëkkoon a booleel ka ko Serigne bi jëkkoon a booleel defu ko ba nga xamee ni ñëw na nag Serigne Babacar Jaay ceergaat ñëw fa daje fa ak moom muy siyaare si sëñ bi ne ko ana kamala booloo mu ne ko mbàkke de kooku boobu la mujj xam ci moom dara sëñ bi boole ko sëñ Babacar Ndiaye cergaan mu jël lam ko lam ko joxoon dem bayal ko ci ay tool ba tool noppi mu jaayal ko ko dajale xaalis ba ñëw joxaat ko ko noonu daane ko nag na ma ko sëriñ bi boole woon yow fas naa yéene diiru may dund ma di ko def kon ñoom seen pëstéef yàgg na ci ñoom kon ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan ci barkeb Serigne Touba yàlla nañu suñu borom boole ci taalibe Serigne Touba ndax taalibe Serigne Touba kat ku ci suñ suñu borom boole na nga xam ne am nga tex ak adduna ak alaaxira ndax moo ko wax xuloo bu jum dek lesina aflahu liye tawajjahat wa rabbil muslimin Serigne Touba wax na ne dem na ba wax ne hamdi wa man xaalafani abada dem na ba képp koo xam ne wóote nga ak ndigale Sëriñ Tuubaa sax suñ borom alag la moo tax ku ko mos a tooñ la lay alag Sëriñ Tuubaa du alag kenn waaye suñu borom moo lay alag waaye képp ku ko jëfal itam aaju faju day ànd ak yow ndax moo waxoon ne xam ngeen li ma di digal nu may xamee xameen def ngeen ko wala ñu ne ko déet mbàkke mu ne waxtu mu ma sante nit lëf day am lu ànd ak moom bu jëfee ndigal la mu dëkk moom mu ne waaye bu jëfewu ndigal nag day dellusiwaat ci man di ma ne dem naa waaye aw amoo fu ma ne dellusiwaat ga muy dellusiwaat ci man nag ci laa xam ne jëfewu ndigal la kon yàlla na yàlla dimbale ba fu ñu toll di jëfe ndigalu Sëriñ Tuubaa ndax képp koo xam ne def ko kat da nga am tax ak àdduna ak alaaxira ndax lépp lu mat a fàggu Sëriñ Tuubaa fàggul lañu ko ndax waxoon na ne danaa leen defar loo xam ne buur du leen dàq fu muy tëdd buur du leen dàq lu muy sol te kuy rëbb buur tegg leen loolu nag képp ku ko mës a jëfal ba say sataat yi sataat defal naa la loo xam ne li buuru àddina yi di jug di ko wute Sëñ Tuubaa defal na la ko kon nañ santaat yàlla gën a delluwaat ci suñ lépp ci Sëñ Tuubaa te bañ cee desal dara bañ koo jox suñ leen tëye suñ leen ndax nee woon na ku ma jox sa lépp ma ma ma tëyal la sa lépp ku ma jox sa leen tëye sa leen nag lan ma jox ma ma defaral la ko la nga téye ma bàyyi ko yow kon yàlla nañ yàlla dimbale bañ bañ bañ di seet dara suñ suñu digg sëñ Tuubaa tam tàbbal ñuy ci suñ kili kilifa yu baax yi ma tuddoon léegi muy suñu Aliou Diouf suñ Aliou Diouf ak suñ Babacar Ndiaye suñ Mor Mané bañ bàyyi ko fii dem jéggi ay dex dem ba xumaa fekk fa sëriñ sarsaara ci wetu xumaa Sëriñ Tuubaa wax ne inna allazina ila sarsaara qad xasadu ziyaarati faaruqu daarayni aw saara ñi ma siyaare si yàlla tàggat na ay bàkkaar dund ak alaaxira te Cheikh Abdou Lahad Mbacké waxoon na ne fa ko Serigne Touba waxee ab garab na waaye ba àddina tukkee te képp ko siyaaree te am tuyaaba ja asalaamaaleykum wa rahmatullahi mbokk yi li mooy ngan gi nga xam ne moom lañ leen jëlee woon fii ci Lambaye ci aljuma dëppoo woon nag fukki fan ak juróom ci juillet atum 2022 doonoon fukki fan ak juróom ci weeru tabaski atum 1443 ginnaaw gàddaayug yonent bi salallahu alayhi wa salam Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdoul Khadr ñëwoon fi doon gane si Serigne Khadim Diouf moom Serigne Modou Diouf moom Serigne Aliou Diouf Lambaye ak mboolem taalib yi nga xam ne ñoo nekkee ci dëkk bii di Lambaye di ngan gu kawe lu ne def nañ ko ci waaye ngan goo xam ne Serigne Bassirou Mbacke Mbacke moom Serigne Abdou Khadre fonk gum ko fonkoon taxoon na bi muy ñëw mu ànd ak délégation bu takk boo xam ne ràññeen nañ ci ñu bëree bëri ci njabootu waa kër Serigne Touba gi santaat leen bu baax a baax ci teewlu gi ñaanalaat Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke moom Serigne Bassirou mu gën fee yàgg lool te gën a wér ñaanal Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdou mu gën fee yàgg lool te gën a wér ak mbooleem kilifay diine yëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu